salaamaaleykum waa New York salaamaaleykum li war New York yëpp 52 états yi le 23 septembre ak le 24 septembre ñu ngi leen di woo di ci ànd ak waa CSD CSD nag mooy collectif de sénégalais de la diaspora le 23 septembre ak le 24 man Daba Seye maa ngi ci biir New York ci dîner de gala bu mag boobu nga xamante ni waa CSD ñoom ñoo ko organisé am na fashion week incha allah ñu tailleur yu baax yi ci Sénégal yëpp ñu ngi ci. sama frère yi nga xamante ne ay styliste la ñun ñëpp ñu ngi ci biir fashion week bi kon ba le 23 ak le 24 di ci woon ak sénégalais yi ak sénégalaises yi di ci woon suñu mbokku gambien yi ak suñu mbokku gambien yi kon nag ah guddi gi nag guddi africaine la kon gambien yi ak gambien yi ah ñu ngi leen di woo yéen tamit ndax yéen mënuñoo dem sans ñu dem sans yéen te yéen tamit mënu leen dem sans ñun Sénégal gambie Gambia kon ba le 23 ak le 24 septembre ci biir New York salaamaaleykum alaikum, euh, euh, mbokku alaikum, beaucoup maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen jaajëfal bu baax peut-être que beaucoup de personnes s'attendaient aujourd'hui au live mais euh, de mon ko def live parce que aussi dama bëgg wax ak sénégalais yi ma bëgg ñu déglu ma ak xel bu baax me baax bañ ma par ak parparloo ak xol wala ak kii dafa contre diw wala contre diw ñun ñëpp ñu boolandoo sénégalais yépp ñi nga xamni sentir nañ ni ay sénégalais lañ ñun ñëpp muy kilifa diiné muy kilifa aada muy militaire ak ku mëna doon ñun ñëpp dañoo àndandoo nakarlu bu baax a baax saaga bi nga xam ne Ousmane Sonko saaga na ko wax ni ay mercenaire lañu ñu saaga boobu nag ñëw ginnaaw bi nga xam ni kii di Ousmane Sonko saaga woon na fi ñi nga xam ni mooy ñaari Euh, kilifa yi nga xamni ñom lañu tuddé conseil constitutionnel ñom ñi jox mu nek maire parce que résultat yi ko def maire ñooñu la Ousmane Sonko saga na fi magistrat yi saga na fi Samba Sall yalla nako yalla yàlla saga na fi le ministre Félix Antoine Abdoulaye Diom saga na fi le général Moussa Fall jige ci loolu Ousmane Sonko ci saga président Macky Sall la dëkk bis bu ne sa su ne ngeen dégg mu saga président Macky Sall Ousmane Sonko xas na fi ku ne tuumaal na fi ku ne donc loolu amaana mu jaaxal ñu bëri waaye man personnellement man Bah Diakhaté dama fi wax benn wax boo xam ni ñu bëri dégg nañ ko ñu bëri dégg nañ ko ñaar kay mooy am imma ñu dégg-dégg jàpp na dégg la ñu ñu ñu ñu def ca lañ ca war a def waaye wala ñu dégg-dégg manam voilà feulenti ko mu dem parce que ku ne ak fa nga fa ma bëgg leen wax tay muy kilifa diine yi ma bëgg sama baat bi yegg ci ñoom muy kilifa aada yi ma bëgg sama baat bi yegg ci ñoom muy kilifa l'armée bi ak police ak gendarmerie bi waaye ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi ki ci jiitu muy le président Macky Sall li may wax nag amaana Khalifa Sall ma ko gën a xam Barthélemy Diaz amaana moom ma xam parce que ba am ñoom la fi fekk dama waxoon ni wax ko ci plateau yi ci télévision yi wax ko ci rajo yi wax ko ci live yi ne leen Ousmane Sonko nii la mën a mel ndax woy juram bu góor 1992 ci Pointe Saint-Georges dafa raylu juróom-ñaari cubalo tey nag dinaa ko wax juróom-ñaari nit dañuy doon wax nordiste rek mais juróom-ñaari cubalo yoo xam ne ay nappkat lañu parce que dañoo toll ci réew mi foo xam ni kenn ku ne la nga war a wax wax ko ña a ñëw wax naa leen ko keroog wax nañ clairement que ni même bu nekkee góor gi dundatul ñoom il sont des témoins wax nañ ni pare nañu bu fekkee ni am nañ journaliste bu mel ni may Maimouna Ndoye Ndir am ku mel ni Mamadou Ibra kan am ku mel ni Pape Abdoulaye Der am ku mel ni Pape nga Ndiaye ñoom buñ ñibbisee parce que neewtuñ fi woon pour beaucoup de raisons la leen tax a génn réew mi ak la leen tax ñu daw danaa ci ñëw léegi ñooñu pare nañu pour ñëw leeral li nga xam mom lay wax moy que parti socialiste ñoom ñëpp xam nañ nit ki ñuy woyé Marcel Bassène yalla yalla yàlla ko moom tamit gañu na Marcel Bassène nekk mili nekkoon militant PDS kon limay wax tamit wa PDS xam nañ ko bu baax 1990 bi nga xam ni président Abdou Diouf da nommé ki ñuy wax Marcel Bassène ngir jox ko mandat mu dem waxtaan ak rebelle yi rebellu Casamance yi ngir jàmm dellu senegal waxoon naa leen tamit ni papa yi Ousmane Sonko Mamadou Sonko ba mu amee problème Podor ak ci balo yi aussi 89 ci la delluwaat Ziguinchor 90 ba mu ñibbisee Ziguinchor 89 mu dajeek ñu fal Marcel Bassène mu tàmbalee waxtaan ak rebelle yi.

qui jàmm ak salam ñëw diggante ña doon xeex ak xex yor ngànnaay ak état du Sénégal C'est lolu Marcel Bassène Marcel Bassène mo dit. mo ci nek kiko si ki ko signé c'est muy Badji le 31 mai 1991 ñu jublu won ci première signature cessez-le-feu entre état du Sénégal ak MFDC. mayam ma ma ma ma alerté toute notification. ñu gaawal ko balaa timis bee ñëw donc maa ngi nekkoon ak yéen ci date yi ngeen déglu bu baax baax 1991 1990 lañu fal Marcel Bassène 1990 1989 le Mamadou Sonko ñëw Ziguinchor 1991 ñu tàmbali li nga xamante ni moom mooy waxtaan ci tan cessez le feu diggante MFDC ak li nga xam moom mooy moom mooy moom mooy rebelle moom mooy état bu Sénégal 1991 ki dañu jox. ñi nga xam ni ñoo amoon pour ñi nangu woon signé traité de paix diggante rebelle yi ak ñi nga xamante moom mooy état bu Sénégal 5 milliards de francs CFA la Abdou Diouf débloqué woon ñu teg ko ci loxo commission boo xam ni ñoo nekkoon di saytu di dox ci li nga xamante ni moom mooy réintégré maanaam boo déggee réintégré mooy bu nit ñi tegee ngànnaay nga jéem a ba jox leen loo xam ni daañ mën a def ay projet yoo xam dañ leen suqali ba dootuñ seen xel dootu mën a nekk ci delluwaat delluwaat delluwaat ci mbir mi. ci loolu Mamadou Sonko ba mu ñëwee waxoon naa leen fii ne ba mu ñëwee 90 89 90 mu dajeeg événement yu mel nii bëggoon na cee bokk mu ñëw donc daal di créer li nga xamante ni wala bëggoon créer li nga xam moom mooy GIE fictif pour mën a bokk ci programme bi. mais ñu ne ko yow maanaam nekkoo woon ci àll bi doo rebelle boo xam ne xam nañu nga ne ci àll bi yore woon arme te programme bi ñi ngi ko jagleel ñi nga xam ne ñoo yoroon arme yi ñoom ak seeni seeni nit. ci loolu la Mamadou sonkoo dem ci quartier bee ñu ñuy wooyee Neema mu daje fa ak ay je ay femmes ay jigéen yoo xam ne dañoo amoon ay GIE ngir jël seeni seeni statut ngir créer benn GIE. ci la aussi ay alpulaar mu mu mu don waxtan ak ñom encore pour ñooñu mën ko jappalé pour mu am GIE waxon na len aussi ne ci le créé won li nga xamanté moy restaurant Le Palmier nekkoon ci buntu port ba ci biir port bi ci buntu ba jakkal won aussi ak ben conteneur cantine bo xamné en même temps bar la won mais en même temps boutique ci lolu ba mu démé ab ñooñu les les les les les gens ont refusé ont refusé maintenant dafa am ñi ñu wax les sept nordistes wala nga les sept tchoubalos qui ont été lâchement abattus à la pointe Saint-Georges ñom ñoo nekkoon les sept grands pêcheurs les sept grands pêcheurs yi nga xamni moy juroom juróom nap kat yi gëna mag yi nga xamni ñom ñoo nekkoon di nap li nga xamante mom moy ay crevettes ak ay langoustes fofu ci Cap Skirring ak diggante Carabane ak pointe Saint-Georges doon ñeu pooru Ziguinchor léegi légui bam pa di créer groupement bi. Euh, parce que mujj na créer groupement bi donc mu jéem essayer wouti khalis pour am li nga xamanteni mom moy mom moy mom moy ay moyens parce que ñe financé wuñ ko mu jéem a wut pour def li gaay def ñe ils ont refusé manam parce que les sept familles là dañu constituer won ben ben entente entente bu maga maga mag donc ñoñu ñi ngi dëkkoon quartier bu ñuy woowee Budodi Budodi ñu dëkk Ziguinchor xam nañu ñooñu dañoo bañ dañoo bañ wax len 90 Marcel Bassem 91 ñu nek signé le cessez 92 ci le Milieu YAM. 92 maintenant particulièrement mois de novembre pa bi ci port bi ubbi fa bureau ak GIE di moyen abonné ñu bañ en 1992 particulièrement novembre 92 ca ñee bañ déparé du Ziguinchor dem kat pour wala a encore retourner jaar fi nga Pointe Saint-Georges qu'il la pas bi les rebelles qui étaient établis au Cap gars yi tëggal piège c'est ainsi que les sept nordistes ont été lâchement abattus képp koo xamante ni euh, bëgg na xam li may wax da dem quartier bi ñu wooyee euh, fa fa marché Kandé fee si ñaamato di nga xam bu baax a baax li may wax lii moo tax ma ni wut réponse par rapport ak Dinga nga xam ni mooy question bi lan moo tax Gobeul Armé, Dombi, Gobeul Sénégal dom dara parce que bagn ko ni ko mëno ci programme bi mëno dugg ci programme bi té pa bi un na fé amé ay bor problème, na fé fait ay problème na ba jaay and ak soxnam ñu Ousmane Sonko ci feuilleton spécial feuilleton spécial la ci ba bis les deux membres du PDS.

et voilà comment le vieux a noué li nga xamante alliance moom ak ñi nga xamné ne dafay réfugié réfugié de de am ñi nga xam ni dañoo bañoon wàcce les armes mbir mi nii la demee. moo tax tey boo Ousmane Sonko limu limu manam ni muy dund nii ci bañ Sénégalais dem ba porte plainte Sénégal ci bañ armée bi dem ba traité suñu armée de mercenaires ci bañ ñangam bañ ñangam dafa am lu bëri lo xam ci feuilleton bi dina ci léral lu bari bari bari bari danaa indi waxon nan ko aussi ñi nga xam c'est des rescapés ci ñi nga xam dañu bokkoon ci famille sept nord yi te lâchement ils ont été abattus à la pointe Saint-Georges dinaa indi ba Sénégal gi dañ def témoignage inshallah allah 2024 nee nga candidat nga mais wallahi sama xex ak yow balaa 2024 dara sotti inshallah sant na ñëpp gërëm ñëpp nodd bi ah kii mooy froid 2000 ku ko gisul dégg nga ko sunu liggéey mi ajo ci lépp li nga xam ne mooy climatisation moo xam installation la maintenance réparation remplacement wala électricité bépp njàqare bu ngeen munti am si seen kër wala si seen liggéeykaay froid 2000 moom ma ci doy. mun nga jokkoo ak ñun au 77 554 54 49. Somme mobile fu ngeen munti ne ñu teew fajal leen seen soxla climatisation. moo xam installation la maintenance wala dépannage amul benn marque bu ñu ci jaaxal bu leen confier n'importe qui seen climatiseur nous sommes une équipe d'experts jeunes motivés et très dynamique 3 2000 téléphone 77 554 54 49 nous sommes à la cité Djily Dakar vous pouvez également nous suivre dans nos différentes plateformes digitales